dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar yi marax yi ak télévision Futur Média gannaaw bañ leen yoo euh, xibaar yi dañ koy tàmbale ak wàllu politique euh, li si nag euh, fësal nañu ko waaye jur na coow ci coalition yu bëri bokk na ci coalition bi di benn Bokk Yaakaar waa AFP ñoo tëgg seen dënn xam ni bégguñu ci ni nga xam ni noonu la ñu doxale dañ leen a sofantal ci tànneef gi loolu nag lu ñu xamle kenn ci ñoom di Alioune Badara Diouf moom moo ko xamle ci jano bu ñu doon seex ak taskatu xibaar yi ñu teew lay kàddoom Mame Birame Diouf moo ko la nga xamoon ni ni mëbët nañ ko ba tënk ko ñu waxtaane ko méngoowul at li nga xam ne nii moom la ñu génn ci liste yi donc la AFP loolu lay ñaawlu te ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu mën a yem beneen bi mooy dafa am dégg-dégg yoo xam ne parti bi mënu koo dégg parce que suñ demee lu toll nii dëkk bu toll ni Malem Odar nga xam ni parti ya fa nekkoon yëpp composé Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp dañu signé ni député bi nga xam ne ni moo fa nekkoon Cheikh Ndiaye war nañ koo joxaat mandaam te parti ya fa nekkoon yëpp bokk Benno Bokk Yaakaar signé ko ñu déposé liste yi ñu génne Cheikh Ndiaye ci liste yooyu te nga xam ni amul benn transparence ak loo xam ne nii déggoo nañ ci wala méngoo nañ ci ci biir parti du Malem Hodar rek la xew dafa xewaat ci yeneen gox yu bëree bëri ci biir Sénégal yoo xam ne nii dañu amoon concertation ba déggoo ci ay kàddu te loolu feeñul ci liste yi nga xam ni publier nañ li xew ci diggante AFP ak benn Bokk Yaakaar daanaka moom moo xew ca Ndar foofu ak parti socialiste ak ñi ñu bokkal euh, benn Bokk Yaakaar di waa APR ñoom nag dañoo gis ni ñoom dañoo foqale ci ni nga xam ne noonu dañu ñu tànne euh, ñoom waa parti socialiste nag ñaawlu nañu ko bu baax dañu ci ànd ak Lati Fall moom mooy secrétaire général bu union communal bu parti socialiste ca Ndar ñu teewlu ko. wax ni li xew wax ma metti na sax su normaloon sax te metti problème mais dafa normal. lii kenn mënu ko expliquer dara mënu ko justifier tey waa affaire yi ñuy def lii ñoo gën xam ni lii ñu def ah dara mënu ko justifier pour benn raison dëgg la ñun nangul nañ leen ni tey ñu tey au niveau département comme ni ñoo jiitu mais su ñu leen ko nangulee mais ñenn ñi si gën a aussi nañ ñu nangul loolu. li tax ñu li tax mënuñu d' accord ndar ba dossier dem Dakar c' parce que ñoom bi ñu jiitoo dafa am ñeneen ñu d' accord ni nii ni ni ni ni PS topp PS moo PS moo si war topp ko ko jox. mais nag je dis que fekkee da ngay ànd ay nit yow laajoo lu lu li nga war am li nga war am nangu ñu ko jox mais su da ngay jëm def leneen te wax li cooli cooli yëpp moo di tey fi mu toll du mën du keneen amul benn responsable partial bu nekk ndar boo xam ne sañ nga wàcc sa base ñu la ñu ñëw soutenir bi kooku du du lu ñuy xalaat ba pare aussi li si am solo moo di mais lii daf ñuy daf daf daf ñuy ubbi yeneen perspective pour pour combat yi di ñëw ndax am juróom te nangu lu sédd si lenn mais ëllëg su bëggee moom rek mais tey lan moo ne sa position tey waa waa APR dañu war xam ne ak lu ñu mënti si parti socialiste bi ànd ak ñoom dañu loyal loyal dañu loyal loyal loyal loyal loyal ba mu jural ñu lu nekk. ñu wax ci élection yi jàppale napp bi fanweeri fan la ñu ko fas yéene amal ci sulet lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay milliards ci ay koppar lañ ci fas yéene dugal loolu nag ki di chroniqueur Mandiaye Ndiaye gis ni lu bëri la te nag dafa jot ñu xool koppar yi nga xam ni ñaare dañ koy def ci ay élection Alassane Ba lañ ca ndal ak Modou Diop. observateur bi di séntu ay jafe-jafe ci législative yi ñu dëkk mën mu jàpp ne élection bi nar nañu jural koppar ju bëri bu ñu seetee bu baax limu list yi ñu validé. bu doon liste euh, unique benn list rek ñu def ci candidat yëpp loolu xam nga du du du waaye bu ñu bëggee ñeent fukk list ak juróom-ñaar ñu def ko ni wote bi ni ñiy bindu ci wote yi nu mu toll maanaam cinq millions. la ñuy multiplier par 47 ci bulletin dafay bari. bi ñu séentoo ne dañ ci war def euh, fukki euh, juróomi milliards ci cëppaandaw ga ñu ngi ci fukki milliards ak juróom benn loolu askan bi am na fu mu ko mën a dugal. mu gis ni ñii nag ñuy xëccoo ngir dem ca assemblée nationale avantage yi fa nekk moo waral li ni mel Mandiaye Gaye nag jàpp ne faaw ñu andi ay coppite ci lu jëm ci wàllu assemblée nationale. fii boo xasee ba falu bu dee départemental dootoo fa dem bu dee nationale fii ngay toog ci Ndakaaru doo dem ñu jox leen oto jox leen terrain jox leen passeport diplomatique xaru tabaski ah suukaru koor au nom de quoi député bi buñ ko falee buy liggéey na liggéey ngir askan wi mais waru fa dem pour padam xaalis booy am loolu moo tax ñu war a soppali charte yi ñuy doxalee ci pencum ndaw réew mi suñ ko deful xëccoo bi dina bari mais bu fekkoon boo fa demee. doo fa am alal doo fa am dara da ñëw pour liggéey xëccoo bi dina néew. mu yokk ci ne ñii ñu tabb tête de liste daraja wala siiw sax moo tax ñu def leen ko. mbetteel mën na ci am parce que àddina day dox ñii am tey euh, daraja daraja warul tax ñu tabb leen parce que gis nañ seen doxalin ñu ci bari dañ fi jaaroon te dañu échoué ba ñu génnee leen donc bu ñuy tànn war nañu seet compétence man-manu nit ki. juróom-ñetti vice président chroniqueur bi di sàkku ñu amal benn bureau bu am solo ca assemblée nationale bi am ñaar wala ñetti vice président ngir mën a wàññi chargé yi. grève de la fin moom la waa siyaas ya fi woon sumb ak waa am Sénégal li ñu bëgg nag mooy ñu jot seen koppar ñi milliards ak genn wàll ñu ngi koy laaj ña ci des ñaari milliards daanaka ak genn wàll alarba la ñu fas yéene tàmbali nag seen grève xiifal boobee dañu déglu seen ay réaction ñenn ci ñoom ak Asmalik Diop. ñun de pare nañu jaay suñu bakken jaay sunu lépp ñu ngi fi toog ak veuve yi ñu ngi fi toog ak waa siyaas ñu ngi nii suñu kon am ku leen gis xam ne ñuy sont des vieillards ñoom ñoo nekkoon siyaas daan fa liggéey sans tenue de travail donc ñu dañ leen war a fay seen alal siyaas ñu amal leen un milliard deux cent cinquante millions sept cent ama ñu amal leen deux milliards sept cent neuf million fay ñu leen ko état du Sénégal di jël ay xaalis di ko may ay nit fan nañu teg loolu si ban Sénégal nañu nekk si ban réew nañu ne mercredi incha allah mercredi matin bu ngeen ñëw fii da ngeen ñu fekk ñu def grève de la fin ba réew mi yëpp xam ni ñun lu ñuy jooy dañ koy ñaxtu te dañuy continuer di ko ñaxtu jafe-jafe nu nun am lekku nu naanu nu xoolal jigéen ñi ñii seen xoolal nag seen bi amuñu sax lu ñu leen nàmpale seen i jëkkër amuñu lu ñuy yore boobaak fay nañ fi big tegoo li tax ngay fay jàmbur yi di bàyyi say doom kan ngeen mës a gis mu jur doomam nu ngu koo yar nu koo jox mu lekk nu ngu koo jox mu naan di yar doomi jàmbur rek dundal doomi jàmbur ñu dem seen kër bàyyi nga say doom ñu taxawaalu mais li xaw Sénégal fii dong la am amul fenn état bi li ñu yoreel nañ ñu ko fay xeex nañu ba dee geraw nañu dalaa fee def nañu lu ne léegi nag sunu bakkan dong nga fi des ku ne xam na ne mag mu woor ba ngoon continuer bu ko defee ñetti fan dina dee wala bu deewti des na ko yóbbu hôpital mu nekkoon waa siyaas gi fi woon ak ama Sénégal ñu dem ci benn dëkk boo xam ni diggante mag mbooroo ñetti kilomètre la foofu nag faju fa dafay të ñi nga xam ne ñooy askan wi usine ba fa nekk di ICS donte mu ngi leen di jàppale waaye loolu amul benn ndimbal wala saafara boo xam def na ko ci seen i jafe-jafe reportage Cheikh Anta Diop xonjo dëkk la boo xamante ni digganteem ak Mboro toll na ci ñetti kilomètres fii de askan wi amoon ay jafe-jafe lool faju da leen daan të dañ daan dox dem ba mbooroo tey jii nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ah, ci direction ICS jël ay koppar yu toll ci juróom-benn fukki million jagle leen ko tabaxal leen ab case de santé ak ay jumtukaay. teraanga bu ne def nañu ñu ngi bogg rek ndimbal ndax eh, fii amagul ku fi nekk koo xam ne wóor na koy mën a defar tey ñu ngi sàkku ci ICS ak sous-préfet nañu mën a am lu ñu ko fayee. lu jëm nag ci wàllu responsabilité sociétale entreprise waa ICS nee nañ daal lépp loo xamante ne njàmbat la nekk ci gox bi daañu leen taxaw. bi Indorama ñëwee macha allah ñoom seen xalaat mooy gox yi nga xamee ne dañoo wër ICS lépp loo xamee ni mën nañ leen ci jàppale ci développement durable ñu def ko ci boobu tànk lañ nekk daaw même 60 milliards dem na ci entreprise sénégalaise yi nga xamee ni entreprise yi wër ICS di liggéey ak moom. donc ñoom seen xam seen façon mooy li ñuy liggéey dafa waroon lu des ci dëkk bi kon tey jii nii ñu ngi commencé vraiment di def li nga xamee ne mënatuñ ko woon commencé nañ ko di ko si pour population bi di ci gis seen bopp ICS aussi gis ci boppam. lu jëm ci wàllu ndox dëkk bi di xonjoo am nañu jafe-jafe. wàllu ndox mi it am na amoo yuy naan am na ñu naanul te man it bu doon na sama sago bu ma naanee sama moroom hin naan fooral bi dafa am jafe-jafe daal kattanam mënul yo dem ci village bi yëpp. waa ICS Mboro kilifa yi sax nee nañ jamono yi nag usine bii de bi ko indien jëlee ba léegi de daanaka mi ngi dox bu baax yaakaar nañu ay koppar yu takku nag dinañ ko dajale jamono yi jëmale ko ci askanu Mboro Daaru Xuddoos ak dëkk yi leen wër. Euh, ku ne koor di nga ni suukaru koor léeg-léeg nag euh, ñi nga xam ne ñooy soxna yi koy euh, faral di joxe rax ca lu ca bokkul te dëppawul benn yoon ak lislaam moo waral Fatou bintu Konté def ci reportage ak Ibou Cissé. koor gi su jotee jamono ji jigéen yu bari nekk ci ab njàkkare ndax coow lu suukaru koor dundin gi metti loolu te kenn sañatul joxe ab paquetu suukar comme ni ko sunu maam yi daan defee. nag jamono ji toll na foo xam ne boo ko joxewul lu ne dinga ko dégg fekk doole ku nekk bëgg nga ko def mais si doole yi la mën nga nekk ak sa wujju peccor ga si kër muy def yow defoo dañuy gis ne danga bon wala danga kii fekk loolu doole yi moo yemul waaw léegi nag loolu moo yàq dëkk waaw mooy li ma la wax rek kii day joxe ganila joxe jees jesner joxe lu ne yow nga joxe paquetu suukar ñu la koy xeebal naan xoolal li mu joxe fekk sa doolee tollu noonu. ñu di la ko xeebal sab indi mu doon lu ñaaw te moo ne dañu koy faral di gis léeg-léeg. xeeb ndax loo am ci indi rek am na am na foo xam ne war na fa am te amu fa. góor na boo ko amee ci moom sant yàlla xeeb gi moom du benn dëgg moom man ma lu jox rek na nga si jàpp si góorgóor si baax yéene sa goro jox ko ko nag yelloo na ko mooy jur sa jëkkër waaye nag du tax a def loo mënul du tax a def loo mënul jarul lépp jarul def loo mënul joxe du force ba tax na ñenn ñi sax ñoom ña ngi koy rafetlu ca bépp anam am na nag ñoo xam ne loo leen jox ko dëgg yàlla ñu xeeb ko di ko def ay yére def ci loo xam ne sax mënuloo ko di leb sax di joxe te loolu moom jaadul ndax dama. dafa ëpp doole léegi ñëpp ko jàmbat metti na lool bëgg joxe ay gasneer ak ay gopp wax sax loolu dafa dafa jaaduwul sax. oustaz Mor Thiam jàpp nii léegi na nañuy defee ab sukkaru koor sànq nit ki rek la teg ci nag yóbbu fitam léegi ñu tuddee ko sukkaru koor loolu nekkul sukkaru koor loolu sànq nit ci koor la sànq nit. ci koor lu tax ma tuddee ko sànq nit ci koor mooy da ngay yóbbu fitu nit ki te l'islam tànk nit ki ñu ngi yóbbu fitam loolu l'islam d'accord ci léegi nag dañuy jël sukkaru koor jigéen ñi lañ ci yóbbu seen fit wax leen ne leen léegi nekkatul sukkaru koor bu njëkk doon nekk benn goro suukar nekk benn benn benn benn yàq booy yàq yóbbul ko sa kër goro mais léegi lan moo xew ay bijoux ay valise ay oto déchargé ko te boo ko amul ñu xas la toroxal la. suukaru koor léegi bu ne nga ci gis ci mim jamono wante jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi xar sab tànku tubéy ngir bëgg a dégg yaa baax. ñu dikk daal ci wàllu tàggat yaram rawatina ci football Salif jawo xam ngeen ni taxawal na genn kuréel goo xam ni onge lañu ko tuddee muy solution li ñu bëgg nag mooy footballu Sénégal dem ca kanam jéego yi mu ci def ak tournée bi yóbbu na ko ba Ziguinchor li mu bëgg nag mooy football bi am geneen xar kanam goo xam ni dina ko mën a joxe ndam dañ ci ànd ak Boubacar Diassi tous, euh, je veux dire, chacun est libre de, de son opinion et de voir des, euh, ses, à, sa façon. Donc moi, je vois la, les choses de cette façon, c'est-à-dire... ñun ñëpp ay sénégalais lañu kenn ku ne am na sañ-sañ joxe xalaatam waaye man daal ni ma ko gisee moo di fexe ba ñëpp joxante loxo ñëpp toog gëstandoo ngir mën a gis saafara si ndaxte at yu génn nii yëpp képp ku yëkkati kaddu jafe-jafe yi rek ngay wax waaye man de gisaguma kenn ku ne lii mooy saafara si man de nangu naa jafe bu amee ñu wax ko waaye it ñu wax lan moo koy saafara. moi il faut il faut être présent donc. Euh... ça mal vu pour moi de venir dire euh, aux gens euh, y problème sur ceci, il y a problème sur cela sans connaître vraiment dans quel environnement ils évoluent donc d'où l'importance moo tax ma ne kenn ku ne war na jóg xar ci tànkati bayam ngir ñu woon fajandoo li doxal ci football bi te sax jàpp naa ni rafetul ma jóg di wax nit ñi lu doxal ci seen i gox te man xaw ma ñoom lu ñu dund loolu moo tax ñu sol suñuy dàll dem si diiwaan yi ba ci gox-goxaan yi ngir wax ak nit ñi. Euh, aujourd'hui surtout cette, idée de la solution est née peut-être que c'est parce que il y a des gens qui ont qui et qu'aujourd'hui il y d'autres personnes qui se démarquent. Euh, ci wàllu football la ñuy des ba tey xam ngeen ni laale war na dox euh, tey suñu gaynde ak Guinée équatoriale loolu nag ci Léopold Sédar Senghor lay amee mu aju ci CAN 2019 éliminatoires yi ñoo war laale waaye nag ñu fàttaliku ne ca 2012 équipe bi ñuy dajal nag moom moo këppoon lii nga xam ni moom mooy euh, yalwaanu suñu gaynde yi moo leen éliminé woon kon ñu ñu xaar nag seen laale bi ñoom ñu jàpp ni sax du doon revanche waaye laale bu nar a metti lay doon Cheikh Tidiane lañ ci àndal. laj ci ndorteeru éliminatoire yi gaynde yi ñemewuñu ko sax xalaat ci match boo xam ni dafay sax niroog revanche waaye ñenn ci ñoom jàppewuñu ko noonu. non ñun ñu kenn xam nañ ne euh, ñoom duñ ñëw fii pour euh, pour perdre dañuy ñëw pour jël benn point ñun tamit. Euh, suñ suñ dëkk lañ nekk dañuy def lépp pour jéem a gagné match bi rek. match bi mbaa du revanche ci yéen. non amul benn revanche parce que Guinée boobu wax Guinée bi du benn ak Sénégal bi tamit équipe bu bees la ñun daal dañuy jéem a liggéey jéem a jëm kanam rek. donte Idrissa Gana Gueye ak ñooñam yi bëgguñu dégg waxu revanche waaye gaynde yi ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir gagné équipe bi nga xamee ne moo leen éliminé woon ci CAN 2012 du yomb ndaxte seen maître à jouer yi di Sadio Mané ak Diao Baldé Keita duñu bokk ci match bi waaye gaynde Sénégal yi dinañu compter ci soutien douzième gaynde bi nga xamee ni ñi ngi am njort ni dinañu bari ci stade bi TFM fii li ñu yem ak yéen mu nekkoon xibaar yi marax ak télévision Futur Média ñu leen di ñaanal ndogu jàmm juróom-ñetti waxtu ci tubaab di ngeen ci ànd ak Lea Ndiaye ngeen jëf.